la ilaha illallah Cheikh Abdoulaye Tabax Mbacke alayka salaamu laah yaa man maazula alhamdulillahi rabbil alamin ala kawnu xadimi ki tax may sant man di biral suma salaatu wa taslimin bila adadin ala safil wara qaadi makkinu fal jox leen ma noppi daay wax man lu baax te rafet jàmbaar yi buy jëf itam waykat bi sandi jotal Cheikh Abdoulaye Lahat Cheikh Abdoulaye Lahat Cheikh Abdoulaye Lahat Ibnul Xadimu Samad réew maa ngi lay nuyu tey ñaan yàlla may la ndimbal yàlla na nga yëggale naalu yu baax yi fi woon yàlla na nga yëggale naalu gaay yu baax yi fi woon sa yéene ci Sëriñ Tuubaa nga xëy ko matal mooy ñaar ñu baax ñi la yar ñoom ñëpp xëy la gërëm ak seex bu mag bii la fagul bur yàlla xëy ko dogal der baa ngi yoon waa ngi yan baa ngi te yal na oyof ya aw ca jéego woon say wax la yàlla saxal woyof ci waaye daal kuy wax na wax la mu xam mbir baa ngi yàlla gabog daw leen tijjee ma jubal jox naa la saa xol bi bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu ñu santee sunu borom subhanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddaliwaat sunu yaakaar Cheikhuna Ahmadul Khadim ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal gën a dolli ak wéram waaye ñaanal Serigne Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke sunu borom may ko fan gudd ànd ak wér-gu-yaram di ziare nag a ñaanal seen rakk ji nga xamante ne bi di Serigne Amsatul Khadim mu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñu amaat mbégteem taxawaat ci tool yi nga xamante ne bii moom la Serigne si di di liggéey liggéey boobu nag saa yu noppee xam ngeen ne da ko daan bàyyi ci loxol rakkam ginnaaw boo xamante ne bii xoolal na ko boppam ba xam ne liggéeyal Serigne Touba rek moo ko war te xam na ne liggéeyal Serigne Touba rek jaara ko ci buntam Serigne Abdoul Ahad mooy la ca gën ma daal ne Serigne Sidi bu tool yi noppeetee nañ ma bàyyi ma yor baddali a nekk le 8 Serigne Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Khadir Mbacke Serigne Alhaji Fallou Bousso moom Serigne Ousmane Serigne Khadim Diouf taxaw fi taxawaayu cheikh yi aju ci kër Serigne Abdoul Ahad fa ñu fas yéene yëkkati kaddu gi rek bàyyee ko Serigne Habibullahi kon ñu bàyyee kaddu gi Serigne Habibullahi mi nga xam ne mooy woote ci turu Serigne Amsatul Khadim mu Cheikh Abdoul Ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammadin wa wa sahbihi asnal xadim umati wa salaatu wasalaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki julli yëpp mbokki taalib yi jàkkaarloo ñu ngi teew ñu ak ngërëm ak woote tur suñu kilifa gi ñu àndal monsieur Abdou Satou waaye di ko wax tur suñu sii di moom si Abdou Khadre nga xam ne ñoom naa ànd fii di ko teew am ngànt moo tax teew fi tey ñu teew teewal ko fii ñu teewal ñëpp teewal suñu xarit yëpp bis bi nag ñëw ci weeru décembre bi ñëw ci la sëñ képp ko xaritam nga ñu mbokkam di wëlëreem wala mbégam sa mbég sëñ baa bi nga xam ne ci fa la ko jox kaay liggéey suñu tubaab dama kaay njëriñu rek kon ñu ngi woo ñëpp góor a jigéen ma nga ndaw waaye rawatina ñun ñi xam ne dañu ànd ak ñun muy suñu lépp di sunu mag di sunu kilifa di sunu di sunu kenn ci ndaan ñu ne naka jekk ci na anam liggéey bi saa bu saa dikk suñ see um yi war naa ñëw teew fii ndax moom ci jëwri ñi nga xam daan taxaw liggéey bi ci la bokk waaye ñun teewal nañ fi kon daal li ñuy wax daal ñuy woo yoon mu répp xam yaakaar sëñ Tuubaa xam ne ko Cheikh Moussa bi ki Cheikh Mamadou Talla waaye kër Mame Mor Diarra ba ci kër Cheikh Massamba ki jam ban maaram ki maaram yëpp ñu xam ne woo Cheikh fi teew ñi xam ne teew na fi Abdou Wagé di ñëpp laa def teew na fi waaye sëñ Adama Gueye mi nga xam ne njëkk a jël sëñ Tuubaa ci bi fi waaye sëñ Xadim Juuf fi nga xam ne aju sëñ Aliou Juuf Lambaye ñëpp ñu teew fii kon kon suñu am saa rek góor jigéen di mag a ndaw bis bi nag ku mën a teew na nga teew ku mën teew na nga teewal ndax liggéey loo ko liggéey bi àjjee na jëm mi ne dafa day jëf jëf jëf jëf waaye laajee na ay moyens yu ko indi ñëw am ay loo am yoo xam ne dañ ko joxe tamit ngir dong yi xam ñooy liggéey liggéey bi ñoo jëriñoo ko ñoom ñu wan leen woo kon ñu lépp la si Abdou Lakar mi nga xam ne mooy rakk suñu am surtout jëwriñam sëñ Modou ñoom ñi nga xam ne ñoo ay rakam lañ waaye sëñ Moussa di gën a am mu sëñ Abdou woote na woote bu rëy sëñ Cheikh wax ci ñoom rek la rek kon nag rek la dafa mel ne loxo bee taxaw yëkkati wala tànk bi yëkkati nee na maa def nangam ci liggéey boobu yi kon ñu ngi ñaan ci képp ko xam ne liggéey si liggéey bi daal saa bakki barke bëgg far dog boo fara doon nga far dog ñu ngi koy xaas bakk Cheikh Xadim te xam ne kaay liggéey suñu tubaab ko tuuti woon nag am na fu mu tàmbalee am fu yem wax ji xaw a ji si daa moom fi tuuti xam lu maanaam boo sëñ bi wax lii rek taxoon suñu tubaab nag Abdoulaye waxoon na ne suñu tubaab laajut deret ñax laaj ñax ak ñuq ak ñuq loolu mooy yoon képp xam nga jëm Sëriñ Tuubaa da nga ñëw ñax Sëriñ Tuubaa ndax ko ko ñaxal benn bis rek lu may feyee ñëpp gis nañ loolu misaal rek ci seex si teew kenn ko sama moo taal moom Sëriñ Tuubaa ci loxo muy rogalaat yaay say bàyyi yaay say maam ñëw ba ci yow mu wóor la defoo ci liggéey bi doo ci dara kon nag ñun ñëpp dañ fay bor seex si ñëw nañ ñun ñëw taxaw fay suñu Tuubaa borom bi dee suñu Tuubaa fekk mën leen ko fay ndax kenn kenn kenn kenn ci seen askan moo tàll noonu loxoom bàyyi bokkam bàyyi ay boppam ñëw Sëriñ fekk si bu ndikkee Sëriñ Tuubaa def ci moom la def ci moom loolu mën na ko misaal ci rek si waa ni waxee si waa ba ay waahid waaye woon fadlu da ala bari fikr am misaal laay tudd sax wa in taajab kun fa ajibun bu fekkee kawtif kawtif jógu Sëñ Tuubaa kawtif la jox misaal maam ji day ñëw Sëñ Tuubaa def ci def ci moom kookee ci boppam lu saqatu ci moom day dem ndax yàlla liggéey rek la Sëñ yàlla da ko da ko jox jàngoor yooyu da ñu ngi ko àllee suñu tubaab bi muy defaree kenn lay defar kooka lu jóg ci moom loola yàlla bay suga tànn benn tànn lay sugal waaye tànn wu ji tànn lay sa sugal yi génn kaan yi génn kaan yi bu dee Dakar saa yi bu dee suñ bu dee tànn kon ci àdduna kenn ku ne ci yéen ba suñ suñ tubaab yi sama am bokkam ñu bokkal nekk fa wala ñu bokkal bàyyi nekk fa bokk xeet bañ ñëw ñun ñëpp yow topp la ginnaaw suñ tubaab ba suñ tubaab na xamuñ ko def ci moom yéen misaal la ci kon seex si ñëw wala ndongo yi nga am liggéey Sëriñ Tuubaa moom amul frontière bu kenn jàpp ne que Sëriñ Tuubaa kër diw tàngam kenn amu fi kër Sëriñ Tuubaa rek am kër waaw kon ñëpp Sëriñ Tuubaa la yaa ko sax dañuy na ñëw fa ñu ñëw na toppee la mu ko defal lépp def na ko kon nañu fay bor bi suñu abo mi nga ci tur suñu abo mi nga xamante ni moo jëwee sëñ Fallou dafa génn waaye kon ndax nii la ma def at bu jot damaa woo ne ma demal teewal ma ko soññee ma bokk taal bi yëpp kon ñu ne woo ci turam waaye suñu siit yi ñu ne woo ñëpp ci tur suñu Abdou Khadim nga xam ñoo ko teewal ànd moom suñu am sot liggéey bi kon daal ñëw leen jëkk da nga am li nga bëgg incha allahu taala yàlla yàlla ci bismillahi rahmaani rahim mu àgg ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu dellu xas si barke sëñ Tuubaa yàlla bu fi am séance yàlla bu oto tëree yàlla bu baat dëkk bi ma dëkk yàlla na ñëpp jóge ak ak si jóge ci bisimilah maanaam ak ci alhamdulilah yàlla yàlla mos si fonce yi yàlla yi mos oto yoo xam ne kër yi wala bëkkante ak oto bi sofee yëpp yàlla na ci te ko xam ne bëgg nga ñëw fi te koy way ñam sëñ Tuubaa fii rek ñu ñaan sëñ Sidi yàlla bàyyi ko fi mu yàgg liggéeyal sëñ bi ñàkk ko anam moom ndax moom saa bu liggéey ñëpp ci sëñ fu ko def lépp sëñ Tuubaa la kon nag kaay bi gis ñu tubaab bi kaay jaay ñuy ndaw ñi góor jigéen ñi kenn ku bu dee xaalis indi bu dee ndox indil bu dee ceeb indil bu dee ay poñ seeg yëpp di rek waaw gasoil oto yeeg yëpp la ñëw koo xam ne am nga oto daal muy benn nga indi ko bu dee na ñaan ci ak Sëriñ Tuubaa nga koo xam ne am nga am nga ab sare indi ko bu dee yàlla nga waaw koo xam ne indi ndox wala déwén balaa bis bi des yoon rek si am surtout biir baa ngi yàllay gabon daw leen tëjee ma jubal jikko ji na ko suñu jikko la jégg na jël la jariñ mooy sëñ bi foofu rek kon maa ngi ku dal ku dëgg da nga jiw fi daal woote la woote nañ ñëw aji bu daax yàlla wa a bi xëy na ko yàq la suñu yàlla musal cim ndok nga jëf ba matal sigil nga say mag bot sooy doomu topp ci yow Cheikh Bamba jiitale ak sa rak nangu ndimbal alhamdulilahi am dan cant war na ma ndax cant bi ndeef ci Cheikh Abdou maa ko jotal yaa yor la Bamba yoro